um, because some residents in the Eju Ashaga sub-region of Lagos form vigilante groups defend their neighborhood against criminal gangs involved in looting during the coronavirus lockdown. As you can see in this footage film over the weekend shows several men armed with machetes, cutlasses and even sticks with nails while patrolling the streets of the residential area. Call yourself one million people. We cannot sleep. we cannot eat they didn't give us rest of mind every day we are being vigilante everywhere so we are tired of them and our government did not assist us we are tired of them look at us everybody is outside no sleeping no eating no food they did not give us food Last week, the Nigerian police force tweeted that they will intensify patrol around residential areas, markets, shopping malls and all critical national infrastructures to effectively tackle all emergency crimes associated with COVID-19 lockdown. But the efforts of the government, it's not that satisfactory to many. Nigerians has reported that uh, in Nigeria, the number of COVID-19 cases reported are close to 542 cases and 19 related deaths according to Johns Hopkins University. Um, that is the report there in Nigeria. Um, gis nañ youngsters yi uh, am there in Nigeria in their residential area to protect their neighbors market yi foofu noonu waaye police yi gars yi dañ tweet ne dinañ def efforts pour ñu protect all the residential areas in Nigeria waaye gis ne youngsters yi loolu doyut leen comme noo ko gisee fii rek ah, they are armed and they are burning ah, tires foofu noonu buckets and and everything foofu di wax ne ah, ñoom dañ soona te seen government bi they are not satisfied ñoom si luñ nekk di def foofu noonu in Nigeria um, so seen jàngat si gis nañ footage of these youngsters there who are armed with, with this thing uh, because of the coronavirus lockdown. You bari nyunge loot so many issues in Nigeria. Wow, wow, okay. This is Africa and African government, and especially Nigeria with their rep reputation, government's reputation. So come time bii nii fu mu nekk bandi yëpp dañ jóg jóg jëf naka la affaire yi banditisé because ñuy gis ne nit ñaa ngi tëju kenn demul liggéey ñëpp a ngi toog affaire bi ñoom seen bopp sax seen boor so moo tax fu mu nekk lu nekk la gars yi nekk di def am kii ñii Nigeria lu gars yi di def ni it's a good move because comme balaa nga ñu ne ndimbal ndimbal na si fekk loxol borom balaa nga xaar government bi di ñëw yéen ngeen defal ko seen boppa so ñoom loolu leen jël ni because government bi nekkuñ di jël any step towards this banditism yi nekk di happen biir Lagos te suñ jógut ñoom seen boppa ñooy loru moo tax gars yi def li waaye comme government moom balaa mu dee jël step towards eh, nit ñi si biir dëkk bi daf dee fekka ne it is too late fekk dara turuwul wala ndox bi si boppam turuwul rek ba ba ba mu jeex gars yi duñ jóg jël comme this is African African government nit ñi dañoo wax a wax a wax ba after sax da nga ba nga xam ne nit ñi dañ dee lose système dañ dee lose faith si seen système bi so lii moom xëj na ñoom ñu try daal buñ xaddi buñ give up ñu continuer si yi di defal seen boppa moo gën ñuy toog di xaar government bi parce nekkee di xaar government bi yow ñu ngi lockdown nekkuñ di leen providal anything satisfactory ngeen bugg a tamit ñu provider leen security so comme loolu dafa dafa am lu moo demee daal dafa tee xel daal because ñu ngi la tëj toog ne la toog a joxuñ la ñu la toog teg toogloo ba pare nga bëgg a ñu provider la ak security du dem ah, ah, comme Mariam nu mu ko waxee rek ah, bi youngsters loo xam ne ñu ngi defend seen boppa against criminal gangs waaye gis nañ ne gars ñu ngi am seen boppa ñu ngi wax ne ñoom lañ soona foofu noonu comme kii nuñ ko gisee si vidéo footage bi waaye ñu nekk di wax ne government bi lu mu nekk di def ñoom loolu doyut leen because ba léegi sa criminal gangs yi ñu ngi loot gars yi seen xaalis yi seen markets yi and and their residential areas waaye ñoom ñu ngi wax ne loolu doyut leen gis nañ ne si kaddu Mariam mu ngi wax ne ah, government si suñ deful dara ah, citizens si dañ ko war a defal ñoom seen boppa because government bi will dafa jël time so lan moo nekk yow si sa jàngat si loolu noonu looking down sal yow coronavirus bi sa ah, it's a problem man daal <laughs> I think ne am xam ne moom <laughs> mooy loolu daal because ñëpp Uh, because of this coronavirus ñi ñi am amuñ ño xamne amuñ dara lu ñoo xalaat lu dul loot ah uh, bagage ñi ñi so lool dafa dafa doy waar torop Modou waaw lool la rek xam nga lu mun taxew rek ku nga xamne lool moy mooy mom daf sey jël opportunity comme lockdown xam nga ci mbédé yi mu ngi firi maybe do gis lu mu do gis daw dootoo ko gis lool ci bi kéré so ñu bari dañ ci dee profito ñu nga xamne lool mo mooy seen liggéey nga xamne su dara xewu xewutoon sa dañ ko def waye tam xam nga dëkk bu nekk dafa am tam loi te say soo fi jógee sa koñ nga ne yow yaay fajal sa bopp loolu xam nga su fa soo fa gaañee nit sax luwaa bi dafaa ñëwaat dal si sa kaw julde loolu mooy problème bi soo ko defee sax ifin nga ñëw gaañ si la jàppee yow si yow nga si ko nga gaañ moom na nga ko dem faji de donte la nekku si woon waaye loi tam dafaa ñëwaat dal si sa kaw te itam nit tam du mun a seetaan ñëw di nit di daanu si kawam waaye loolu yëpp daf di am waaye si loolu yëpp tam responsabilité nguur bu nekk la pour tam mu mu aar ñu ay askanam euh, ba nga xam ne ni lu seen bakkan dina dina dina séef dina nekk fu séef am na solo waaye tam luwaa tam kenn du ko mën a jël téye ko si sa loxo boo ko defee rek dafaa ñëwaat baak tuyu dafaa dafaa dal si sa kaw tam so loolu moo si nekk waaw